jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci euh, Bawal Info TV maa ngi leen di nuyu mbokk yi nag euh, tey ñu bëgg a seq waxtaan ak euh, Mamadou Ndiaye ñu gën koo xam ci Ndiaye Bambey mu nekk responsable politique APR. ci Bambey mu nekk tamit euh, coordonnateur euh, xippil xool li fi Macky Sall def euh, li ñu bëgg a waxtaanee mooy dañu ko bëgg a laaj ci xalaatam ci proposition de loi bi nga xam ne député de Touré def na ko muy proposition de loi boo xam ne dafa bëgg ku nekk njiitum réew rek sa njaboot génne loxoom ci ci institution yi Ndiaye Bambey maa ngi lay nuyu. ñu ngi fay bu baax. Mamadou Ndiaye. Euh, yow nga nekk responsable politique à APR comme ni ma ko waxee sànq proposition de loi bu Aminata Touré boobu euh, yow lan moo ci sax xalaat. Euh, je pense que nekkuñu sax ay nitu droit mais am na loo xamante ne nañ koo xam muy proposition de loi su dee day jublu pour tànn ay nit yuy loi bi di daan je pense que nekkatul loi boo xamante ne loi bu générale la. que nee proposition de loi dafa war a général te gis nañ ne soxna Mimi Touré dafa ciblé ay nit maanaam ay njabootu président ndax nee nañ loi soo koy proposé dafa war a nekk loi bu général boo xamante ne ñëpp dinañ ci mën a gis seen bopp. waaw mais mais président bu mën doon rek mais président bu mën doon muy président Macky Sall ak keneen ko fi mën di ñëw. non déggoo c'est pas une question de président de la République. c'est que du moment où moom mu ne la famille du président c'est-à-dire que am na fu mu féetale loi ba te loi je pense que warul féete fenn dafa war a général donc jàpp naa ne euh, Mimi dafay continuer di def ci li nga xamante ne mooy goree di day continuer ci def li nga xamante ne mooy manque de reconnaissance ndax tey su dee moom day proposer une telle loi en tant que intellectuel waroon na mën a xam ne la loi est générale waaw mais mais mais euh, Mamadou Ndiaye dañu gis tamit ne euh, suñu président yi seen famille yi dañuy faral di dugal seen loxo euh, ci yorinu réew mi. non bul ne c'est man man man man donné boobu dama koy rejeté parce que jàpp naa ne nit su nekkee président ka bokk ci fameem sénégalais la comme moom ni mu nekkee sénégalais su amee xam-xam ak mën-mën bëgg a liggéeyal Sénégal am na droit liggéeyal Sénégal. je pense que gisuñu le président Macky Sall mu nommé doomam gisuñu le président Macky Sall mu nommé jabaram kon jàpp naa ne koo xamante ne dafa bokk ci famille. mais mais gis nañ ne mais gis nañ ne rakkam euh, nommé woon na rakkam gis nañ ne tamit euh, ay ay ay ay gorom ñoo ngi ci yori euh, yorinu réew mi. mais mais mais na nga nangu ak man ne gis nañ ne rakkam waa Géejawaay ñoo jël seen baat jox ko ko def ko le maire. mu jiite le maire la mairie de Guédiawaye kon waa Guédiawaye dépp ñoom xanaa waruñu bokk ci gestion réew mi te Guédiawaye ci réew mi la bokk kon kooku suñ ko joxee pour mu liggéeyal réew mi am nañ droit mu liggéeyal réew mi. gis nañ ki nga xamante ne mooy Mansour Faye di la maire de Saint-Louis yor baatu région de Saint-Louis kooku su amee xam-xam pour jóg liggéeyal réew mi war na liggéeyal réew mi te gis nañ wax dëgg fa yàlla ñu wax ko tey fii ci rajo bi. li nga xamante ne Mansour Faye mi ngi koy liggéey ci li ko dénk mi ngi ciy def ay yokkute yoo xamante ne ñëpp ñu ngi ciy teg seen ba dama ne il faut que Mimi arrêté yenn analyse yi waroon na nekk bëggoon naa nekk président assemblée amul majorité bu ko permettre mu nekk président assemblée parce que xëy na député yi ñu ko ndax lii lañ gisoon ci moom. no mais nee na dañ ko trahir. non non y' a pas de trahison xanaa kon biñ koy sal premier ministre Macky le président Macky Sall dafa trahir tous les responsables yi mu àndal xanaa bi koy def tête de liste le président dafa trahir tous les responsables yi mu àndal il faut que mu arrêté ci loolu dama ne ñun aujourd'hui euh, man jàpp naa ne Sénégal fi mu toll du ay loi yoo xamante ne day viser ay nit moo koy jariñ Sénégal fi mu toll dañoo soxla li nga xamante ne mooy politique sociale bi président bi indi ñu fexe ba askan bi jariñu ci ba nit ñi yëg yokk gën a yokku yokkute seen dund gën a neex loolu ñun ci loolu lañ nekk mimi su fekkante ne dafa bëgg a ak ñi mu àndal nañu dëggal seen bopp sur le terrain ñu bàyyi dugg ci yenn détails yi kii réewu jàmm la réewu salaam la réewu réewu aussi ngor la mais li muy def ak li mu ba ba tey gisuñu ne yëfi ngor la gisuñu ne yëfi responsable la mais mais Ndiaye Euh, dañu gis tamit ne euh, yéen dafa mel ni da ngeen a bëgg a bund xataal euh, Aminata Touré. nan. ñoo ngi gis kàddu yi Ismaïla Madior Fall mu wax ne Aminata Touré bu doxee saf loo xam ne safa noona ak APR benn bokk yaakaar mm, dana ñàkk mandat député am. man de damaa jàpp man Mamadou Ndiaye Bambey lépp lu professeur Ismaïla Madior wax ci loi ak droit man jàpp naa ne ci yoon la ko teg dëgg la. su fekkante ne professeur loolu la wax kon jàpp nañ la loi bi permettre nañu loolu mais ku la ne loolu la ñuy def moom dafa répondre rek question journaliste. waaye nag parce que jàpp naa ne assemblée nationale gis nga gis nga mon ami assemblée nationale ni mu mel ni ci lay sénégalais yi di gën a xam la belle vision du président de la république ak cofeelu président de la république ci développer le Sénégal. d'accord ña nga fa opposition bi ña nga fa nañ indiwaat loi yi président voté ñu xool ba xam benn loi jubluwul ngir yokk dundinu Sénégal yi ñu mën a nekk ci jàmm. d'accord léegi euh, Mamadou njaay même Aminata Touré wax na ne Ismaïla Madior Fall bu dee jàppale na mag Sall ci mbirum ñetteelu candidature moom ak président lépp lu fi xew 2024 danañu ko yóbbu ca kanamu cour pénal international CPI. man man li ma gëm mooy euh, ñetteel candidature amul. dañoo woote benn référendum ñu ne renouvelable deux mandats renouvelables de cinq ans le président Macky Sall def benn mandat wu cinq ans mu war koo dese beneen mandat wu cinq ans kon deuxième quinquennat bii nga xamante ne moom la ñuy wax su ko le président Macky Sall bëggee ñun dinañ ci ànd ak moom. bu ngeen si àndee même bu ngeen si àndee ak moom est que askan bi xam nga ne luñ nangu lu doon Ablaye Wade mën nañ koo bañ a nangul président Macky Sall. pourquoi askan bi. bëgg a nangu ne politiciens yi dañ leen di di leen def looloo xamante ne ci seen intérêt képp la tegu. dé déedéet déedéet président Macky Sall moo taxawoon deux mille dix neuf avant deux mille dix neuf na suñ ma falee deux mille dix neuf moo nekk sama deuxième et dernier mandat. dama ne man Mamadou Ndiaye Bambey xam nga lan laa gëm. mooy li sama constitution wax. li sama constitution wax. moo sut baatu képp ku mu mënti doon fii ci Sénégal su fekkee constitution permettre na ko pour mu def deuxième quinquennat am na droit nekk candidat. d'accord léegi nag day def day des ci moom ñun ay militants lañ ay militants yu loyal lañ mais aussi ay militants de droit lañ su ko bëggee yoon may ko ko dinañ ko ci jàppale te jàpp naa ne benn sénégalais warul mën a génn di def benn musiba. ci loo xamante ne loi daf koo permettre constitution daf koo permettre ñi leen koy wax pour ñu def ko seen intérêt personnel képp lañ ci jublu. d'accord taal réew mi képp lañ ci jublu te jàpp naa ne réew mi du réew mu ñuy taal ndax réewu jàmm la mag ñu baax bi dañ ko fee liggéey kon ku yéene Sénégal safaan jàpp naa ne safaan ba yow. yaa jërëjëf Mamadou Ndiaye Ndiaye Bambey.